jàngatu Baye altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lu xew wala lu xewati mbokk yi dëkk bi ndax dañu ko tegul ci ay loxo yu wér te wóor ñu war koo saytu ci lépp loo xam ne ni doxalinu dëkk bi la. damay laaj rek mbokk yi ndax kat dëkk boo xam ne kenn ku ci nekk ni nga ko yëgee ak ni nga ko bëggee rek nga fas yéene doxee ci dëkk bi kenn ku nekk bokk say sañ-sañ di jëfandikoo li ñëpp moom lépp loo xam ne ni dañu ko fee fàggu woon ngir yaatal dëkk bi ba bokk yi nga xam ne dañuy bàyyeekoo fu nekk di ñëw ci dëkk bi mën di dem ak di dikk te duñu am benn jafe-jafe comme ndaje mii nga xam ne dañu fi daje di jàngal alxuraanul karim di jàng xasida di sikkër di sabal suñu boroom bu ñu ñëwee dëkk bi xat ba dem beeg dikk bi nekk ci ay jafe-jafe yu tar mbokk yi loolu lépp nag ñi nga xam ne ñoo war a taxawu dëkk bi taxawu nit ñi taxawu mbedd yi ñoo nekk di seetaan ni ko baaxoo di def mbokk yi nan la ñuy mën a seetaanee dëkk bi saa bu ñu yeewoo gis kuy tabax ci mbedd mi ana ñan ñoo leen ko autorisé bu fekkee ne autorisé wuñ leen ko ana ñi nga xam ne ñoo war a taxaw dëkk bi war koo saytu jekkul jaaduwul te loolu bokk na ci li nga xam ne day téye ndox mi ci mbedd mi fu neex waaye tabax fu neex waaye dagge mbedd jàpp ngeen ne lii jekk na jàpp ngeen ne lii jaadu na ana commission bi nga xam ne ñoom la ñu dénk loolu ci mairie bi lan la ñuy liggéey lu tax du ñu mbedd Serigne Touba lu xew mbokk yi ndax dañ koo talul ndax dañ koo mënul ndax dañoo amul fit xew mbokk yi seetaan gi nga xam ne ak bay baybayal gi nga xam ne moo tax sareet yi dem ba tey doon problème bu rëy ci dëkk bu sell bii di Touba dëgg la ña ngay dajaloo di nosu ngir doon benn ngir saytu seenub liggéey waaye nañ seppe la ca rax mbokk yi lu tax du ñu ut arrêté utal leen yoon mu jaar lu tax du ñu ut arrêté dakkal garage yi nga xam ne def nañ ko ci biir marché bi ñaata garage a nekk ci biir marché bi kenn da ko mën a compter sareet yi nag ñoom ñëpp maasa nañu ànd ci ne li ëpp ci problème yi sareetu mbaam yee ko indi course mbaam yi ñoo koy def ñoom la ñuy wax ne dañuy gens di gensal mbaam yi xanaa xalaatu leen réglementé sareetu mbaam buy yabi nit ay gone di ko dawal lu tax du ñu dakkal sareetu mbaam yi wala ñu tere leen ñuy dugg ci biir dëkk bi mbokk yi bërki démb ñoo doon xeex are baylaat yëg la ca xew ñoo doon mayee alkaati yi ñëw ñu di leen sànni xeer defe ngeen ne lii jekk na defe ngeen ne lii jaadu na waaw lii du ngeen ci jël ay matukaay te dakkal ko lu tax ku mu neex rek nga dem uti ci sareet sànni ci tali bi transport moom dafa mel ne amul ndey amul bay amul benn règlement amul benn sart moo xam nga yor sa sareet moo xam nga yor sa oto bu amul këyit moo xam nga yor sa oto bu warul rayab ay nit mbokk yi xool leen ni ñu def booru jumaa ji jàpp ngeen ne lii jaadu na jumaa jii nga xam ne mooy xolu dëkk bi jumaa jii nga xam ne mooy dëkk bi seetaan ko ñu def ko ay garage amul waxtu julli du fajar du tisbaar du tàkkusaan du timis du gee defe ngeen ne niñ def diggante kër Serigne tubaa gi ak jumaa ji jekk na jël ko def ko garage par force mu mel na dëkk bi dafa amul ñu ko taxawu ba kañ mbokk yi nañu libéré jumaa ji nañ libéré mbedd tubaa yi taxawu leen dëkk bi te bàyyi seetaan gi ndax sant ñu leen ngeen seetaan li ñu leen sant mooy ngeen jëf am ngeen ndigal li jël leen ay matukaay li nekk ci mbedd mi te war a caa nekk nañ ko ca jële jumaa ji ñu def garage nañ ko dakkal sareet yi nga xam ne waruñoo yeb ay nit rawatina ay sareetu mbaam nañ ko dakkal ñu dem ba sareet yi ñoo ëpp nit ñi lu tax duñu ko dakkal te réglementé li nga xam ne mënta ñàkk ba kañ mbokk yi lu xew ñi war a taxawu loolu nag te jiitu ci ñuy seetaan bu ëllëgee danañu màtt seen baaraam mere leen deful dara waaye li wér te wóor mooy nii ñu seetaanee dëkk bi jekkul jaaduwul te dëkk bi yayoowu ko boroom dëkk bi yayoowu ko nañ ci jóg waay jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM